di am mbégte rek ak contentement bu baax a baax a baax jàkkaarloog yéen fii ci 4appuis TV mbokk yi ni ñu koy defee ak yéen rek saa su ne di dalal ay kilifa waaye tey nag ñu toog a teg kilifa goo xamante ne naam dootuñu ko présenté sénégalais ndax it taxawaay bu am solo bi nga xamante ni moom la yàgg taxawee di Serigne Mouhamed euh, Faris doomu Saalum bi sénégalais nag xam ko bu baax ci li nga xamante ne moo di wàllum ñaan ak faj aajo ci li nga xamante ne moo di euh, doomu yàlla doomu aadama yi cheikh bi am nañ mbekk tey bu baax a baax a baax dalal la ñu bàyyi la rek nga ndékk mbokk internet yi alhamdulillah aousubillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbokk yi nga xamante ñu ñuy topp ci biir réew mi ak ci bitim réew rawatina ñu nekk ci bitim réew di leen kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen ñaanal yàlla yombal seen mbir kenn ku nekk la doon sa saaku saakuteef suñu borom jàppandal la ko incha allah. Mm-hmm. di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu muy kàddu nuyoo yu ama am solo waaye nag ma dooree ak moom ci li nga xamante ni moo di waxtaan bi cheikh bi tey dama bëgg eh, ñi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel ñu xam dëggi dëggi dëggi buntu ñaan eh, buntu ñaan tey soo koy leeralal askan bi yan kàddu lay doon. waaw sëñ bi ñu ngi jaarawaat ba di la leeralal li nga xamante ni doon nag sax laaj mm-hmm. yaakaar naa bépp bunt boo gis rek am na aw yoon woo mën a jaar ba yegg ca bunt ba ba jëfandikoo la nga bëgg a jëfandikoo mm-hmm. buntum ñaan nag lépp képp koo xamante ni mi ngi siy yëngatu te mënut njëkkee ci lii daanaka mën ngaa noppalu ci la nga nekk muy seet gi nga xamante ni mooy si buntu moo lay xamal mbirum doomu aadama yi ba di la xamal gàllankoor yi la ko waral ka ko def góor la wala jigéen la mm-hmm. sëriñ ba ko def jullit la wala du jullit mm-hmm. liggéey ba ban façon la bu ñuul la wala du bu ñuul bërëb bañ ko def mm-hmm. loolu nag doomu aadama mënul koo xam ci dara lu da nga xoolal defal ko ci da nga li nga xamante mooy istiqaara rawxaan yi pour nga mën a xam dund doomu aadama bi yëpp boo ko leeral la nag du dara lu dul fam toll ak lim dëgmal pour mu mën a bàyyi mën a fagu mën a waaj wa mën a def fagaru ci xam xamante ni mooy ak jëmu boppam nit ki nag euh, yaakaar naa kenn mënta ñaanal doomu aadama loolu da nga koo gësul ay mbiram gëstu ay mbiram boobu nag bu yàlla dogalee nga def ko xam la waral xat-xat yi may dund dana gën a yombal li nga xamante ni mën nga ko see ñaanal ci wàllum ñaan yàlla incha allah hmm. muy sa muy listixaar bi nga xamante ni ñu ngi koy faral di def wala seet gi nga xamante ni ñu ngi ko siy faral di def hmm. wàllum seet gi euh, ci mbir la moo xamante ne suñu borom daf la cee cëralee ba koo ci euh, seqal ab sant rek la ciy def waaye naam ñi nga xamante ne neewuñu ci réew ne bitim réew bëgg a Serigne Mouhamed Faari seetal leen seen mbir ñoom it nanka ngay def ak ñoom. waaw wàllu woowu dama ci sant yàlla bu baax boo xoolee ba may tàmbali sax ñoom laa jiital mm-hmm. euh, ca nuyoo ba mm-hmm. waaw sama jëflante nag dama ci sant yàlla bu baax ñi ci ëpp ña nga foofa maa ngi leen di ñaanal yàlla mm-hmm. képp koo xamante ne yàlla dogal na suñu jëflante maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla barkeel may la la nga xamante ni tax na nga dem foofu di ko sàkku ji mm-hmm. waaye képp koo xamante ni tamit yàlla dogal na ñu war la see ñaanal yoon wa benn la mm-hmm. numéro baa noonu boo ko jëlee boo ñu si envoyé message incha allah jarul nga ñuy wax sa benn soxla soxlaak bopp mm-hmm. lenn li ñu yittewoo mooy sa tur sa tur wajur wu jigéen ñu xam ko xam fa ñuy jaar wax la li li la tax a jug ak li ngay dund ak say xat-xat bu fekkee ne xataa yow doomu aadama da ngaa nga xam ne yow mi tawat gi sa tawat dafa rax boo ñu wooyee jarul nga ñuy wax leneen lu dul damaa tawat dama tawat googu nag danañ xam sa tur sa turu waajur wu jigéen bés ba nga ñëw si kàttu ni yàlla ñu wax la la la njabar lan la fu mu ko jaarilee fu mu nekk te dana la ko saafaral ci kàttanu yàlla incha allah suñ borom nag wàcceewut benn feebar lu dul daa wàccee la nga xamante ni looloo koy saafara te loolu dénkut ko kenn ku dul jaamu yàlla yi nga xamante ni ñi ngi faral di di yëngatu ci wàllu wi mm-hmm. euh, li nga xamante ni nag euh, dina taxaw tuuti nag ci ñu teel cee waxtaan ndax naam ñu bëri dañ naan ma boo toogee ak Serigne Mouhamed Faris seet nañ lu bëri moom nga koy mujjee laaj waaye tey dama koy boole samay laaj yi jiitu muy jaaro bi nga xamante ne askan wi ci boppam ñoo ko tuddee la solution waaw jaaro boobu dama ci sant yàlla bu baax a baax yaakaar naa yàgg nañ di ci wax mhm. yàgg nañ di si jëflante doomu aadama mhm. suñ borom nag mu ñu si suturaal waxtu wu nekk mhm. jaaro bi dama naan képp koo xaman ne sag yokkute suñ borom namul koo jaarale ci mun daanaka mënu ci am ginnaaw gi nga xamante ni yittewoo ko ba ma gëstu say mbir ba noppi xam gàllankoor yi lan la jaaro bi nekkul nag damay yëkkati jaaro rek jox la danaa xam couleur bi nga xamante ni moom méngoog say mbir xam say gàllankoor lan la xam sarax ba méngoog say mbir incha allah ñu jox la jaaro bi ak yam war a àndal nga di ko jëfandikoo ci kàttanu yàlla lépp loo xamante ni yaa ngi si daan dugg wala lépp loo xam ne yaa ngi si daan liggéey lijjanti wala lépp loo xam ne yaa ngi ko daan bëgg te du sotti suñu borom dana la yombal lool li nga xamante nii ne moo a dana la dikkee ndeyjoor ak càmmoñ ba jaaxalo loolu si kàttanu yàlla incha allah. Mhm. macha allah yaakaar naa ne kaddu yi am na solo loolu ba tey ci fàttali ñu ngi dalal Serigne Mouhamed euh, Faris yéen ñi bëgg a jokkoo ak moom numéro téléphone baa ngi noonu ci suufu écran bi waaye cheikh bi ma taxaw nag ak yow ci li nga xamante ni nag euh, njëriñ la askan bi yu bëri bëri euh, duñu dégg fenn nit di ko fa wax ku dul sa jëmm ji muy li nga xamante ni mooy fas gi fas gi ànd ak nopp gi cheikh waaw fas gi àndandoo bi moo nekk comme fas bi yi nga xamante ni dañ si faral di liggéey kii sama maam gi nga xamante ni ki ma ko jàngal jox ma si ndigal ma ci mhm. bu yàggu dara nee na ma fas gii mhm. amul képp ko xamante ni fas nga ko ci te la nga bëgg mënut ci am leen loolu mënut ci nekk mhm. sama góor gi ma ko jàngal nag may ma ci ndigal ñaanal ma ci boobu ba léegi nag yàlla ma si defal sutura yàlla ma si defal tawféex képp koo xamante ni yàlla dogal na ñu fas la ci ak képp koo mën a doon loo am am gàllaaj mm. si kàttun yàlla yàlla may na ma mbaaxam mbaax goo xamante ni si sama jëmm mm-hmm. ak tolluwaay gi nga xamante ni su ma si fasee ak doomu aadama suñ borom dana jàpp na li nga xamante doon na bëgg-bëgg bi mm-hmm. lii nag dafa doon loo xamante ni wax ji da see xaw a bari lool ci wàllum fas gi mm-hmm. moo tax dama si sant yàlla bu baax ak ña nga xamante ni yàlla dogal ñu jaar seeg jëflante yàlla dogal ñu xam lii nga xamante moo doon tolluwaayu fas bi fas bi daal dafa doon fas boo xamante sama maam lenn la ma ci wax nee nit koo xamante ni nag si su euh, sukuraat mm. li nga bëgg ci moom lenn doon ñaanal ko suñ borom jël ko jël boo xamante ni du ànd ak méttit nee na ma kooku dong nga si mënta fas mm-hmm. da nga si fas ñaari sëy yoo xamante ni dañoo wanante ginnaaw moo xam di góor ak jigéen mm-hmm. da nga si fas nit ñoo xamante ni dañoo wanante ginnaaw da nga si fas yow mi nga xam ne dafa am loo yittewoo ci doomu aadama tamu doon farata mm-hmm. képp koo xam ne yàlla dogal na la si def ko nañ ko war a defee jeex na ci kàttanu yàlla nit kooku la mu bëgg ba fas la si loolu nga koy wuyoo si kàttanu yàlla mu neex la wala mu naqari la incha allah. Mhm. macha allah yaakaar naa ni am na solo waaye nopp gi nga xamante ne ànd na ak moom ñu bëri dañuy faral di yëg yenn façon nopp gi waaye sa nopp gi cheikh bi doy de. waa nopp gi moom weesu tina sax doy waar. nga poney fas. ni noob ni kànnaar benn bu nekk tur la waaye xoolee ñoo bokk benn usra maa ñoo bokk benn famille bi nga xam ne si lañ soqe ko ndax lépp mm-hmm. benn bi la wax bee wutee mm-hmm. waaye gis nga comme nga tasxiir doomu aadama jàpp ko la nga bëgg mu di la ko defal mu neex la mu naqaree si kàttun loolu yàlla yombala nañu ko mm-hmm. yàlla tàggatal nañu ko yàlla wan nañu yoon woo xam ne képp kuñ fa jaara la nga bëgg ci doomu aadama mu neex ko mu naqar yàlla dana la ko defal ci kàttun yàlla fas gi nag eh, ma la doon leeral léegi coow li da bari lool comme li ma la wax léegi. Mhm. waaye ñi nga xamante ni yàlla dogal nañu jëflante ci. Mhm. ñi nga xamante yàlla dogal ñu jëflante ak jaar yoon wa ñu war a jëflante moom. Mhm. yàlla defal nañu si sutura la ma góor gi waxoon nag laay wax amul mbindeef boo xam ne lépp lu mën a nekk ca yaram fas ma fas la fas gi di di di la rëcc loolu fas gi daal si gàttal du jaas si doomu aadama mm. képp ku ma si fas am la si mm. kàttanu yàlla incha allah ak koo mën a doon nag ndax des fois da nga gis ñoo xam ne danaan damaa noobloo noobloo ba sonn wala damaa jàpp leen du yomb mm-hmm. gis nga doomu aadama ci boppam yaramam dana tilim sax ba tax moom lépp lu mu dem sàkku ji ak lu mu mm-hmm. mën a doon sax day faat day day day day gànt mm-hmm. tey bu fekkoon lépp lu nit daan def dañ si daan boole nga ànd say moroom ñu jël ñu ñuy lim ñëpp wala ñuy jox ñu bañ la say jox. Hmm. yow sa jëmm jow yaa war a xam mën a xoolaat sa yaram sa hmm. tolluwaay lan la ndaxte yaram bu tilim nag dana gàntal lépp loo xamante njëriñu doomu aadama la. Eh. macha allah loolu di kàddu yu ama am solo waaye kàddu cant ak ngërëm eh, gi nga xamante ne saa su ne rek dañu koy faral di dégg suñu mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk ci diaspora bi rawatina ñi nga xamante ne seen yitte leen rek la woon muy jafe-jafe kayit naam ba ñu jokkoo ak sëriñ Mouhamed Faris la yàlla leeral seen i mbir wàllum papier. wàllum papier bi nag eh, alhamdulilah rabbil alamin Euh, la ma góor gi waxoon tamit danaa leen si leeralaat al tuus li nga xamante ñu ngi koy liggéey si li laa fi xuróy si nombre boo xamante ni xaw naa takk loolu nombre ba nag duñ ko wax mm-hmm. ak meññantee fi garab yoo xamante ni dana ànd ak moom garab gi gis buñ ko liggéeyee jox la ko yow sa jëm bopp fépp foo ti nekk bépp kayit boo mën a lijjanti kayit nag bu ñu nee kayit na ñu bëri dañuy yaakaar tukki rek tukki rek la wala ka tukki bëgg a ñib mm-hmm. am na ci ñoo xam ne ñu ngi dem si bërëb déposé déposé fa seen i kayit wala ñoo xam ne dañoo jàng ba sonn déposé seen kayit pour ñu jël leen ñu liggéey rek loolu problème la mm-hmm. yooyu yëpp nag dafa doon loo xam problème boo xamante ni dafa daje ci doomu aadama loolu nag solution bi am na fi mm-hmm. problème kayit ñu si sant yàlla bu baax solution bi am na fi képp koo xamante ne suñu borom dogal ñu namm see jëflante ñu xaw a xool ko xam gàllankoor yi lan moo ko waral ñu jaar yoon wañu war a jaar si kàttanu yàlla suñu borom dana la ko jox na ko bëggee si kàttanu yàlla incha allah. Euh, ñi xawoon naa ko fàtte waaye tamit euh, day baax ñu fàttali ko ba ñenn ñi nga xamante ni seen i këyit wala seen dossier ci wàllum yoon dañuy dem ba fàtte leen euh, xabtal bi nga xamante ne da koy def ci këyit yàgg yàgg yàgg procureur bi war a dina xëccaat see këyit wala atte la. wàllum yoon woowu dafa am ci loo xamante ni lu ndaw la si gis-gis waaye lu rëy la si dégg-dégg mm-hmm. Euh, si misaal tey ñu ne loon diw suba war nga wuy ji hmm. gis nga bu ma la joxee sunk bi nga wax li nga si war a wax def ko sa ron tànk hmm. si kàttu yàlla incha allah da nga fa jaabante ba sonn waaye kala fa yóbbu du fa mës a teg tànkam te bu fa tegee tànkam ci kàttu yàlla sa barab bu lay wuy jee waaye du doonati foofu si kàttanu yàlla lu ndaw laa la si jox wax la na ma lay wax ni nga koy jëfandikoo nga def si sa tànk dem si kàttanu yàlla ndox mu sedd dong moo si mujj incha allah incha allahu eh, jamono ji bëri na yi nga xamante ni moo di ay eh, yëngu-yëngu ci réew mi cheikh bi eh, ñi nga xamante ni dañoo bëgg mbir wala ñuy xëccoo wàllum xëccoo waaw wàllum xëccoo yàlla dénk nañu si ay yoon yu fasantikoo yu bari lool te yaatu lool. Mm-hmm. yàgg nañ ci di ci jëflanteek doomu aadama nag yàlla ngi leen si defar sutura te yàlla mu ngi leen si may ndam. Mm-hmm. wàll woo dafa am yoon woo xam ne dañ ko fay jaaree. buñ ko fa jaaree nag duma ko wax nag nañ koy jaaree waaye dinaa leen si leeralal que ni li may leeral du dara lu xam que ni loolu am na fi te ñu ngi koy jëflante ak doomu aadama yàlla ngi si def ndom yàlla ngi siy ndox mu sedd hmm. waaye képp koo xam ne yàlla dogal na ñu war see jëflante ban wan la yoon wa nañ koy jëfandikoo da ngay jaar lépp loo daan xëccoo mu lay jafe ci kàttanu yàlla demal nga xëccoo loolu yàlla dana ko yëkkati teg ko sa loxo si kàttanu yàlla incha allah. Mm-hmm. waaye ki nga xamante ne nag euh, tamit ay mbiram dafa yàqu ba amatul yaakaar ci boppam euh, bëri na ñi nga xamante ne ginnaaw yàlla sa jëmm ji moo leen defaraat ba ñu amaat yaakaar ci seen bopp euh, nit ku yàq yaakaar ci boppam. Mm. waaw loolu dafay am am na ñoo xamante ni dañ naan man lépp lu ma dugg rek dafay yàqu mm-hmm. lépp lu ma yaakaar mu tax sama liggéey yàqu na mm-hmm. sama bitig ba ma doon jaay yàqu na mm-hmm. place ba ma yoroon yàqu na yooyu yëpp dafay am ci doomu adama nit nag lii dong la eh, yàlla nag lépp lu bind lu nekk rek doomu aadama la ko jagle waaye jagleewu ko benn mala am na ci ñoo xamante ni tey ji seen mbir daraan dox macha allah waaye dañuy toog ba jëmi jëm lépp daanu li koy waral lii dong la pexe doomu aadama. Mhm. ndaxte am na si ñoo xamante ñàkkul ñuy xëye di gis ñu leen di suyal ay garab seen place. Mhm. moo xam mooy saafara moo xam lu mu mën a doon waaye képp koo xam dañoo yàq sa palaasu liggéeykaay ñu yàq sa yaram mm-hmm. moo xam yàq sa yaram sa wàllum koom-koom wala yàq sa yaram def la tawat yoo xam day dund sa biir deret mm-hmm. si kàttanu yàlla saafara bi yàlla dénk nañu ko incha allah mm-hmm. sawar naa nag ku ma koy defal ku nekk nan la fekk nga nekk ci ay xat-xat te loolu mënoo ko defal kenn ku nekkul ci xat-xat bu boobaa danañ la génnee si néeg bu lëndëm bi ñu la fekk dugal si néeg bu leer bi ñu la fekk nga génnee fa fexe dimbalaat yeneen i jaamu yàlla incha allah macha allah yaakaar naa ne sëñ xaadim kàddu yooyu am na solo loolu ci waxtaan bi nga xamante ne ñu ngi ko séqoon ak moom seriñ Mouhamed eh, Faris li may tëjee ak moom nag moo di càngat gu doy waar cangat gi moom moom cheikh bi man xam naa balaa maa dem moom foog nga wax utal ma ci moom <laughs> waaw càngat gi de mi ngi noonu yàlla dogal na moom waxtu bu nekk ñu ngi koy liggéey di ko mm-hmm. baaxee jaamu yàlla yi nga xamante ni seen wërsëg ci la nekk mm-hmm. càngat googu nga gis sëñ Xaadim ma doon mm, wérdu mm-hmm. di ko di ko wër noonu lañ koy liggéeyee ginnaaw bu ñu defaree saafara ba nopp waaye képp koo xamante ne say mbir namm naa yëkkatiku da nga ci sangu képp koo xam ne say mbir nammuta yëkkatiku daanaka mënoo ci am ba di ci sangu waaye képp koo xam ne naa la si ab kaas lum tuuti tuuti tuuti ma wax la yoon wa ngay jaar ba jëfandikoo ko ci kàttun yàlla jëflanteeg ak doomu aadama mu di la jafe yàlla dana la tàggatal loolu lépp loo daan jëflanteeg doomu aadama mu di la jafe yàlla dana la tàggatal loolu képp koo xamante ni yaa ngi daan seq ak koo mën doon sa kàddu mooy féetee kaw seeni kàddu lépp loo bokkaan ak doom bokkoon ak doomu aadama ñu jëla si xeex wala wala jëla si soxore ci kàttunu yàlla mu neex leen mu naqareem ci mbaaxu yàlla yow yaa leen di jiite incha allah mooy sangat googu nga xamante ni yaa ngi gis ñu du ko ñu defar ko ba noppi di wér di ko wër incha allah incha allah yaakaar naa ne cheikh bi waxtaan bi am na solo loolu saa su ne rek dama koy faral di wax toog ak yow jotaay lenn rek a ci am solo mooy njëriñ lay doon ci ñi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel te loolu rek la ñuy sàkku ci li nga xamante ne mbokk yi moo di jotaay naam euh, waxtu bi xaw na ñoo xot waaye ma profité rek bàyyi la nga joxe waale dernière carte bi Serigne Mouhamed. waaw ñu ngi santaat yàlla bu baax di ñaanal kilifa yi nga xamante ni yàlla boole nañu ak ñoom. Mm-hmm. di ñaan si réew mi jàmm di leen ñaanal yéen yàlla may leen tawféex ak tey siir ak yokkute yàlla may leen lu ngeen def seeni i poos bay faj seeni i soxla di ñaan jàmm nag ci réew mi ndaxte euh, jàmm moom yaakaar naa képp ku ko fi ñaanu ci waxtu yi ñu toll ah, sa xel gàtt na wala sa xel lëndëm na ndax gis ngeen dëkk bi ni mu jaxasoo yàq bi bari na taal bi bari na di ñaanal ki nga xamante ni ñi nga xamante ni ñoo fi nekk yàlla boole seen xol fexe mu doon benn mhm. ba képp ki nga xam ne yàlla dogal nga war fee toog jiite ñu si jàmm mhm. kenn ku nekk di si yëg sa bopp rawatina ndaw ñi ndaw ñi sonn nañ lool waaw ndaw ñi sonn nañ lool mhm. liggéey amut Mm-hmm. ndaw ñu sonn nañ lool mm-hmm. rawatina ñi nga xamante ni wàññeeku nañ ci ndox mi ñu mm-hmm. leen di jaale seen mbokk ñaan leen yàlla xare leen àjjana di leen wax aaxiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Xaadim yaakaar naa ne kàddu yi am na solo loolu ci dalal bu ñu ko dalal moom sëriñ Mouhamed euh, Faris di am mbégte nag a kontaante bu baax a baax a baax di leen jox ti daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf